comme kan. ah Ibro Naaj li mu woy yow chéri waay maa ko moom maa ko njëkk def single. ah bon waaw waay nga fóon ma ndax dama laa loof ci ngeen da ngay soo neexi di gën bi di jongoma xoolal si may sinap saat nga di ma xool may gën di jantal sax di la gëna a loof ndax chéri yow maa la bëgg loolu maa ko moom. waaw yow loolu la woy de yow tamit nga ne yaa ko woyee tamit. moom YouTube. te boo xoolee dat bi studio Père Papis Ndiaye moo def loolu Cheikh Anta Ndiaye moo ko tëgg boo duggee yitib boo xoolee date bi di nga gis date bi kañ laa ko génne loolu toujours bi laa daggoon dugal ko yitib parce que jamono boobu affaire do xale la woon du loo xam te ne am nañu nekk sama ginnaaw pour mën mën a yoon ci laa nekk di góorgóorlu di góorgóorlu di góor rek ba tey jëmi yàlla ba tey jii léegi yow Iba Nadio kon sa son la jël woyaat ko. morceau boobu li ma ci woy li booy jël bari na. man dama laa nopp di la bëgg a fon saay loolu maa ko ci boole morceau boobu te bas def na ko morceau def na ko son loolu bas cuun moo ko taasu waa waaw loolu sama morceau boobu la njëkk a génn kon mais xanaa bas cuun yow dafa déggoon son bi ci yow wala nu mu demee noonu non loolu dama ko génn woon après gel di si def TikTok gel di ko sinap moom mu gis ko loolu xaw ma nag moom man mais man moom bu ñëwoon suba suba jël li mu jël li may def ma bàyyi ko mais xam nga yow lu ma jaaxal hmm. mooy sa papa macha allah bokk na suñu dàq woy Sénégal ñi xam musique quoi. moom tamit tout récemment wax na fi dañoo sàcc samay woy amoon na coow mais après par la suite jeex na yow tamit doom ji nga indi say affaire gars yi di ko sàcc nu mu demee noonu yéen tamit. est-ce que xam nga benn affaire. Mhm. Sénégal ñi mën a woy boo toggee kilo ceeb te ko fi mun ñu ko jeexal parce que bëriwuñ. woykat yi Sénégal bëriwuñ. kon sàcckat yee bëri ci woy mi waaw. ma ñeme ko korog taasu nga woy nga te sa papa aussi waa Grand Dakar la waa ñaari tali la yow tamit waa Grand Dakar nga waa ñaari tali nga sa papa souvent dañ koy dégg moom ak yenn booy nekk foofu noonu ñoo xam ne mënuñ njëkk ci musique dañ ko waxtadee lu ci mel ni tarba euh, jàppal galas jàppal tarba parce que instant bi tamit ñoom ñoo gën a fës Grand Dakar euh, ci diggante boobu noonu yow en tant que doom woykat bi loo ci paree def non dama ne woon loolu du ma ci wax sax ah di nga ci wax de fii Fass tarbaat booy yooyu non dama ne woon du ma ci wax parce que euh, maanaam euh, ñoom jamono ji dañuy xaar ne le. ñoom Tarba dañuy xaar. Tarbaat kum ci mu mënti nekk dañuy xaar. Tarba feesal deux fois yi soirée bi yàggul dara plein Tarba na feesal sax stade Demba Diop. ci kaw immeuble ba wàcc nga xaar non du ñu benn mën a ñoom maa leen dàq sañse gën leen xam suuf bis bi gën leen xam li fi nekk te maa leen gën a neex a bëgg tamit aussi. say tëgg nga combat daa mel sa combat papa bi nga bëgg a jël xeexal xeexal ma sama papa de. Ah. man xeexalu ma sama papa de. Mm. man damay liggéey. ok xeexalu ma sama papa parce que moom ñoom yàgg nañoo wax loolu. galas tarba galas tarba. galas parce que ñu ngi doon wax sa papa daf def foofu ay affiche génn ko. di ko tarba je ne sais pas. yooyu yëpp nag euh, yooyu yëpp xëy na yëpp xal la ñuy def rek. Mm. man du ma def loolu. parce que mais bu ma nekkee xale tam sama xel mi màgg na. at lépp lu luñ ci mënte am boo tegoon fii sa kaasu meew du ma ko xool. l'essentiel sama liggéey moomu ñor waaw sama liggéey moomu ñor ah, kon nag ay tarbaat yooyu moom noonu liggéey ma pour ñooñu léegi gars yi dañuy xaar ko ñaar tali déggoo ma xanaa benn woykat lay muy man ah waa ñaar dégg la mais ñaar nag gars yi foofu doon woykat bu mag nii fa nga liggéey te gars yi dañoo xam musique de no man ah, maanaam li sant yàlla sax maanaam ma def premier single je soirée nii am tuuti sax aw ma dara parce que soirée bi sax man jàpp naa ne waaw man jàpp naa ne sax man def ma fa lu baax jàpp naa ne bu baax def ma fa lu baax waaw nga natt sa bopp xam kon nag ay affaire tarba moom mooy loolu sant yàlla mhm. di nuyu tamit sama benn waay Mirzo Keledor ak ngeen teel a mën a nuyoo yéen artistes yi ndaw yi ngay nuyoo moom fu mu jaar maam amal nuyoo après ñu ko parce que xam la moo tax uh-huh. euh, maa ci mujjee ñëw man la ci njëkk may oto bi jar dix millions waaw naa wax ci sa oto boobu noonu oto bi de moom tarkal la waaw sant yàlla. sant yàlla ci oto bi di màcc tuñ naan. waaw waaw waaw loo xam nga loolu dafa neex. <laughs> xale bu jigéen bi toog ci kanam kooku la sax. waa kooku nag sama jigéen la. Ah, sama man de man ñëw naa naan buur xanaa di jël xale bi. non non man du doxaan. ah na ko ñu dem. léegi waa ji da nga koy gërëm acca acca acca moo la. jël waaw Medzo Kéledor. Mhm. kooku moom a njëkk a may million. ndeysaan kooku noonu Medoune. ok waaw Serigne noo koy bàyyi ma càmm mu ndaw caane kooku maa ko tuddee Kéledor. ok parce que ma bëgg. kon bu yëkkatee lu toll noonu may la ko kooku amoo fayam waaw ba ñëpp di ci wax buur lii buur la mais sant yàlla nag waaw te leena leen moo ngi ci kanam incha allah rek eh, léegi nag dañuy dugg ci say projet hmm. eh, def nga événement def single hmm. lan ngay waajal instant bi nii chaque jour ñoo ngi waajal dara hmm. ñu waaj ñu pour semaine bee ni ñëw pour at bee ñun chaque jour dañuy waaj pour suba def nañu ay morso instant bi def nañ quatre morceaux yoo xam ne wër na génn waaw bu ñu jógee Touba incha allah rabbi am nañ tam boo xam tam Cheikh Ibra lañ ci way dina génn euh, ci màggal gi incha allah rabbi waaw incha allah kon projet yi mi ngi mi ngi ñëw hmm.